asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku Sénégal yéen ñi nga xam ni yéen ñuy seetaan si biir Sénégal waaye nag si diaspora bi yëpp ñëw rek di wax suñu xalaat li nga xam ne nii moo am ci Sénégal tey nag comme ni ngeen ko xamee président Macky Sall war na jàkkaarloog Sénégalais yi pour wax leen seen xalaat pour wax li nga xam ne moom la décidé pour ëllëgu Sénégal surtout si mbiram élection yi ñu ñëw rek di rafetlu décision bi nga xam ne moom la jël pour tànn. ay média sénégalais yu wuteewut yu wutee pour ñu mëna def liggéey bobu dama yag nak di ñaawlu li nga xamné ni nii da waxé rek day dem ci média yu melni France 24 RFI di len wax ak ñom di bàyyi média sénégalais ma yag di wax né mom ñi koy liggéeyal si mbiram conseiller wala mom seen xalaat des na dama doon wax souvent né ni muy démé di def interview ak France 24 yeneen télé bitim réew mënoon na rek par exemple ci misal tànn né tay Jolof FM wala Linguère FM wala benn télé boo xam ne mi ngi nekk si jiwaan bu mu ko neex Sénégal rek moom laa may sama interview su ko defee opérateur économique yi sénégalais yépp mën a ñëw euh, jënd ay page publicité si jo si média local boobu su ko defee aussi ñoom ñu mën si gis seen bopp sénégalais aussi mën a xam yan mooy yooyu média ñu mën a jëm kanam di mën am koom-koom ba xam ne dinañ mën a tax ba ñu développé ba ëllëg ñuy ñuy am ay ay di embaucher ay doomu sénégalais. Donc, Taï, Li, même si c'est pour moi, euh, comme on dit en tout cas, mieux vaut tard que jamais, mais génn gui, muy def di ko euh, ay médias Sénégal loolu man maa ngi même si pour moi c'est un peu tard mais wax dëgg yàlla euh, ñu ngi koy rafetlu côté boobu. di wax nag <clears throat> sénégalais yi damay wax exemple souvent ne réew mu am démocratie dëgg-dëgg day mel comme par exemple France fii. bu vote jotee sànq rek dafa am bagage ma doon seet ma gis ay kuréel yu ma envoyé woon yoo xam ne nii pour ay élection yu weesu la woon yoo xam ne la si defal sax bulletin bulletin ñiy bokk président yooyu yëpp exemple bi ma si bëgg a rek mooy ne réew bu doxee dëgg-dëgg élection bu amee dimanche bi boo liggéeyul da ngay grâce mat ba heure bu la neex nga yeewu dox nànk dem vote ji ñibbi si war sa kër kenn du dégg coow à part campagne électorale bu ñu dox yoo xam ne ni débat d'idées lay doon candidat yi mën a seen candidat seen programme ci jàmm citoyens yi tan mais nak Afrique rek ngay gis élection am 5 mois avant ni ñu nekk instabilité ak insécurité 5 mois après bu guerre civile amul ak guerre xeex amul sax nga neen alhamdulillah donc lool mo lay won rek suñu état démocratie ñuy wax nak ñun Sénégal peut-être do nañ am ay jafé jafe si élection mais ren nak mom mom moy mo ci raw ren mom kenn du mos a fàtte li fi xew bis bu ñuy jang histoire du Sénégal mom li nga xamné ni Macky Sall man pour man lu jiin njaaga mooy njaaga parce que ma naan man président de la république mooy mi ngi mel ne père de famille père de famille nu kër ga tëddee rek nu kër ga mel moom la surtout nag père de famille boo xam ne mën naa ne moom mooy cokkaas mbéj dóor dóoraat ba pare na ñëw leen ñu dialogue loolu ku ne xam na ne munoo ñëw pour man Macky Sall lu jiin njaaga mooy njaaga coow li am ci présidentielle yi yëpp mooma ba pare nag mu ñëwaan nag ñim tooñ tooñati leen na ñëw ñëw leen ñu dialogue nag sénégalais yi xaaruñ dialogue luñ xaar mooy respecter les textes de loi respecter suñu constitution ni fi say nawle ñëwee woon ni ñu ay nawle moom ñëwee woon def fi ay élection muy président Abdou Diouf muy Abdoulaye Wade muy keneen noonu la amee moom responsabilité organiser des élections transparentes xam ngeen la le 3 février décision bii mu jël annulé suñu élection su ko toon tey ñeenti sénégal yi si faatu ku ne mën nga waat ne bon xam nga fan la ñuy faatoo mais duñ faatoo si ay manifestation bon man dama naan souvent ba mu ko waxee li ma njëkk a tiit mooy yeneen Sénégal dañ ñàkk seen bakkan waaye nag ba bind ko sax posté képp ku si ñàkk bakkanam nañ ko yokk si bilan bilan négatif am bilan macabre am mooy wax jox exemple nag tey bu examen amee fenn si réew muy baccalauréat muy BFM muy lu mu doon si àdduna am ay citoyen yu nekk candidat mais seen biir candidature mu am ay lëj-lëj lu si am muy këy du juddu muy lu mu munti doon si àdduna yéen ñëpp d'accord ngeen man ne boobaa ñooñu la ñuy éliminer waaye kay nag duñ éliminer élection ba lu nit dof-dof lu ñak ñak xel lu ne ku bok ci jongante han ah, yow say kit am lu fa xew yow lañu éliminer mais du téré élection yi kenn duko annuler kenn donc pour man ak pour sénégalais yu lolu moy koy wax lu mi wax encore mooy euh, wax bu tassante gesso la yabu namu donc affaire Karim wad ak double nationalité yoy pour man prétexte la rek sénégalais yu bari noonu lañu ko gissé pour nak mom gëna gagner du temps pour gëna tok ci nguur gi wolof ñaan nak yag na wax nag nguur kenn du ko <laughs> mais malheureusement nak ak régime bi mom gis nañ li fi nek may wax nak lo xamni ni sama xalaat la muy lenn muy xamna na ma préciser nak pour cette élection mom commission yi mom ni mel pour man du c'est pas l'heure du dialogue c'est pas l'heure de changer les règles du jeu kenn du dem ba football commencer ba mi temps ñew nga da ngay changer règles du jeu

double nationalité dina tax nga éliminer candidat mais nak encore une fois ma préciser ko ñi nga xamné ni nak tanki tànki bukki lañ bëgg Sénégal pour né dañuy élection da am nak ma sàmba bokkul ndax amul candidat lool c'est trop tard ñom ay kat sen rôle moy liggéey su ñom ñepp bu ndol doon liggéey lii bu doon ne problème lay indil war nañ ko gis avant aujourd'hui mais ce n'est pas à la veille d'une élection qu'on change les règles du jeu qu'on emmerde les Sénégalais di gattal rek né Sénégalais yi Macky Sall bu jàmm amé yow la bu ay amé yow la ñun un dialogue pour man yow yaay mbéj kaata matte sëlëm say opposant bam neex la nga leen dialogue képp républicain gis nga donc encore une fois say naw dañ fay ñëwoon organiser élection transparente jàmm am yow yaay président guléet noonu laa donc nag gor bu ne xam l'histoire est là l'histoire retiendra tout ce que Macky Sall a fait mom waxuma dara way mujj gu ñaaw mom vraiment kep kuy julli war nga ñaan yalla may la mujj gu rafet mais sama gis-gis ak gis-gis Sénégal yu bari ni mu mujjee ak Sénégal ay bilan bu mundo na ma diko répéter encore une fois même bu demone ba def Sénégal développer économique ba raw États-Unis d'Amérique sax jëf yu ñaaw yu fi am emprisonnement yi ak lenen ak lenen ak gis ñaak ñàkk bakkar taxna mom lu mu def yi gis lenen mu gis lool di wax nak lo xam j'y tiens beaucoup de Sénégalais war nañ tenir bu li wesso nañu am suñ commission d'enquête enquête wala tribunal spéciaux yo xam ne danañ waxuma vengé wu wala rancunier mais def liguey bu rafet képp sa bépp sénégalais bo xamné sa loxo taq na si li fi am lu ñaaw lepp yoon def li mu def jaar ak fa mu jaar ak yow parce que dafa yomb lool réew mënut a dox bu dee piliers institution yi deugruñ bu dee justice amul moo tax nag. lii fi xew Sénégal violence policière yi ñëpp teg seen bët ak lenen ak lenen ak abus li fi am li fi am lepp musibe la dem ba senegal fum nek une ci lu ñaaw lay doon dem ba ya bo dox ci mbedd sax nit ñi naan la yow lu xew senegal di le titel loolu musul am image senegal yaqku nak rek pour man kenn nit muy president Macky Sall duma samba duma dem ba man j'assume pour man ak sénégalais républicain yu bëree bëri wax ji moy loolu di len jaajeufal di len ñaan nak ku ko bëgg rek nga partager pour permettre rek ñi nga xamni yalla dafa def xamuñ canal IK News man di suivre l'actualité jërë ngeen jëf